Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 12 août 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële ca Thiaroye Tari Diallo ginnaw ben bus Dakar dem dik moom la ñu daal di kayaase auteur bi nak dafa daldi di ci ben barbarie ba nopi daldi daw jël la tangente mu don ben pur acte de barbarie bo xamanteni presque lu gratuit la ñu noté ko démb ci dimanche bi fofu ci banlieue dakaroise mu don ben info bo xamanteni li di société Dakar dem dik ñom ñoko ko jëmele ko dal ci ben désolation bo xamanteni dal daal nañ ko daldi constater constaté acte boo xamante ni de vandalisme la jëmale ko daal ci seen benn bus Dakar dem dikk ginnaaw communiqué bi nag luñ ko jàppee benn désolation boo xamante ni dañ ko constaté jëmale ko ci acte de vandalisme ginnaaw nag bi nga xamante ni démb ci dimanche bi fukki fan ak benn ci weeru août atum 2024 benn motocycliste moo daal di caillassé li nga xamante ni mooy pare-brise arrière bi nga xamante ni benn ci seen bus la numéro 6. 140 6140 jëmale ko daal ci ligne 16 boo xamante ni moo nekkoon foofu fa Caaxoy Tali diallo ginnaaw nag bi mu ja pare dafa daldi daw luñ ci xam dal muy comportement bo xamanteni ni digne de sabotage la bo xamanteni tay tey kenn mënu ko bayyi ñu daldi koy impunir mu doon benn sécurité jëmale ko ci usager yi ak ñi di personnel lu patrimoine essentiel bi dal ñi ngi condamné bu baax a baax li nga xamanteni dal dal na seen bus bi di ligne 16 nekk foofa ca Thiaroye Tali Diallo di 6140 mom dal la benn motocycliste daal di kayase li di pare arrière bi ñom dal ñi ngi dénoncer bu baax a baax acte bi nga xamanteni du dara lu dul sabotage wala vandalisme Hey.